ba ci nga ki nga xamante ne nii moom mooy Seynabou bu taalibe taalibe Serigne Touba bi. Mbacké waaw maam Cheikh Ibrahima Fall bi. yow murid piir bi. Ah, di doomi ndeyu anti umi. <laughs> ñu ngi lay wish happy birthday. yow Seynabou Ndiaye Ndiaye jaata Ndiaye buur Ndiaye gaynde Ndiaye doomi gaynde Ndiaye bi waay na ko dama ne <laughs> yow lii lan la nii. bàyyi ma tagga ko. dama ne. kii doomi ndeyu anti umi la. te dew da war a dund ba say may di baawaan murit cest bi cest bi dundal lu bëree bëree bëri. Seynabou Ndiaye taalibe xaadimul Moustapha. Ndiaye. ki nga xamante ne moo dugg tukki jaar Libreville jaar ki nga xamante ne moo. am jumaa ju mag ji ñuy ooye Masaalikul Jinaan ak xool jumaa ju mag ji Touba juróom-ñaari sóoróor yi dana Cheikh bëgg maam Cheikh Rafal. waaw waaw ci ngaay guur dëgg bàyyi laa Rafal. sigi benn ne borom yàlla jàmm nga am. seen bu faal seen bu sëy yow happy birthday to you seen bu dundal jaata njaay. xar ci faal. Seynabou Aji Fall sa doomu ndey waaye Oumy Bathily nee na ñu ngi soo happy birthday kon nag nee na. the sweetheart black queen. lay lay la laa ay sweetheart black queen. Seynabou ci taar gi bu ci jongama bi Seynabou ci xol bu rafet bi ah bu yow dundal waaye borom xolal. dundal kooku borom Angleterre la. Mm-hmm. Angleterre la nee naa wax sama géej gi xani koo amee naa ko yow Angleterre ku ko jaayoo rek pomme de terre leen boole waaye nag Seynabou Njaay jaata Njaay. taalibe xaadimul Moustapha bëgg maam Seera Fall ah yaay Fall bee.